sénégalais yi nga xam ne ni diis na ci ñoom trop yokk facture courant lu ñu gisoon lu ñu gëjoon a gis Barça wala Barsak fan yi seetlu nga ko suivre nga information yi certainement quinze sénégalais ay xale yu ndaw réer ci géej gi comme ça euh, bërki démb wala démb benn mbëkk jàpp nañ ko Soumbédioune euh, grève agent SDE yi et cetera et cetera seen nguur gi tamit moom. diis na ci Sénégal yi jàpp naa ne sax. romb na nguur gi mais problème de comportement la nit ñi. Mhm. nit ñi seen jikko yi seen jikko yi moom moo moo baaxul. Mm, ci nan. non seen jikko yi moo baaxul parce que gis nga benn. Mhm. Euh, ñii ñu wax ay Barça ak ay yooyu. Mhm. soo demee si biir euh, dëkk àll bi famille yi ñooy dagale xaalis daal di koy jox kenn ne ko yoo demal malgré que nit ñi li ñuy daj man gis naa sunu dëkk. koo xam ne. ah nee na eh, ñoom oto yi ñoroon ñaari ñaari oto la ñu yoroon juróom nit ñoo ko sauvé mm-hmm. ñaari oto désert bi ba ñuy yegg li bi juróom nit moo ko des donc presque mën nañ quatre-vingt-dix personnes ñoo xam ne ñu ngi jóge woon ñaamee eh, lañ jóge woon mm-hmm. Niger eh, ci Niger pour dem pour dem foofu mais loolu situation boobu ñu bëree ki dee mm-hmm. ma ne Sénégalais yi xam nañ ko donc comportement boobu Sénégalais yi seen bopp ça n'a rien à voir avec les gouvernements xaalis bi ñuy dagalee di ko yóbbu ci bitim réew suñ ko defoon fii mën nañu liggéey. beneen bi tam li jëm ci courant bi. courant bi courant bi ñëpp xam nañ ne ñun amuñu courant euh, ak ñun amuñu pétrole pétrole bi fi mu toll exploité guñ ko. Mhm. Euh, soo demee France actuellement yokk nañu pétrole bi soo demee même États-Unis muy produire pétrole yokk nañu pétrole bi donc état Sénégal mënta continuer attanul ah di subventionner pétrole bi war a tabax ay école war a tabax ay hôpitaux ah. Euh, war a war a faj nit ñi nga xam ne ma ne dañu feebar war a war a def lu nekk war a dafa ay ay mbedd état bi attanul loolu donc nañu nangu ne état bi gis seen bopp alors nañ bàyyi ñu def vérité des prix te ni président Macky Sall def nee na laalul ñi nga xam ne ñoom ñooy nit ñu ndaw ñi mooy ñi nga xam ne ñoom dañu am ay salaires yu faible ñooñu hausse bi laalu leen donc hausse du pétrole mënta ñàkk parce que am na ci réew beneen beneen bi ci des mm-hmm. SDE agent yi lu dañ leen jox xaw ma quinze pour cent waaye yow ma ne euh, euh, SDE du alalu réew mi la patrimoine national la pourquoi travailleurs yi war ko séddoo yow mii doo ci am te yow ngay sénégalais nekk ci biir Sénégal am ci cër parce que ñoom ñu ngi fay liggéey rek ñu ne ñu ñu ne état bi na leen jox quinze pour cent euh, ci lool loolu du yoon cest à que man maslaa nañu mm-hmm. jox nañu leen cinq pour cent wala sax soo ko defee Euh, wala dix pour cent ñu ne waaw ñun de ñu jox ñu lépp ñi nga xam ne dañoo nekk yeneen sociétés yi sax nga xam ne duñu SDE buñ ci bokk mais loolu du gàtt xel gàtt xel la d'abord ñu bugg jël alalu Sénégal ñu ne na leen ko jox ñoom ñëpp gàtt xel la aussi yeneen sociétés yi nga xam ne ñoo nekk yi di ngatu ci ndox ñu ne leen yéen du ngeen am ñu rek ñooy am mais nañu seet intérêt national l'intérêt national suñ koy seet da ngay laaj loo xam ne jaadu na comme dans la mouvance internationale ñu ngi commencé suñuy euh, privatiser société publique yi di si joxaale travailleurs yi pour motiver leen pour ñu gën a liggéey seen liggéey nañu jàpp ci loolu mais bu ñu jël lépp xañ ko askan wi parce que état yu Sénégal manoon na ne cinq pour cent yi du ma leen ko jox. damay def un appel d'offre bépp sénégalais boo xam ne bu nga jënd participation ci SDE kaay jënd su ko defee yow soo amee jënd sa morom soo amee jënd. mais ñu jël ci une partie cëraleel ko ñun duñu yem foofu dañu jël lépp loolu gàtt xel la. du yoon. yaakaar naa vingt cinq pour cent la ñuy laaj ci. mais fan la ñu wékk ñoom ñu am te yow mii nga xam ne bés bu nekk yaa ngi fay ndox ah ak suuf si nga xam ne ki la ndox mi di jógee euh, fleur Sénégal yàlla jox ko Sénégalais yëpp. ñoom ñu ne ñoom nañ jël vingt cinq pour cent. réew mi des yëpp nag seize millions d'habitants yi ñu ne leen yéen na ngeen jël soixante. wala 10 pour cent wala 20 pour cent mooy wekkuñu ko fen c'est-à-dire il faut que nit ñi dellusiwaat indiwaat seen xel xam ne mënuñu jël àll askan wi ay lobby yore ko te gis nga man dama doon wax ne Abdoulaye Wade sax daan na ko théoriser nee na secteur stratégique yi muy lu jëm ci courant bi muy lu jëm ci ndox mi muy lu jëm ci gaz bi nga xam ne loolu mënta ñàkk ci réew mi loolu état bi da cee war a teg loxoom état bi waru koo bàyyee ñoo xam ne heure bu leen neexee ñu xarandañu ñu tëj robinet yi waruñu ko te loolu dëgg la donc état war na fexe ba récupérer loolu téye ko ak loxoom parce que lépp loo xam ne suñ ko paralysé suñ ko tëjee réew mi day paralysé waruñu ko bàyyi ci loxo ay privé parce que gars yi kenn ku nekk sa bopp ngay wutal su fekkoon ne privé bi dafay xalaat pour Sénégal mais privé bi day xalaat pour lu la ci poosam est-ce que loolu yoon la loolu yoon. Farba Senghor nga doonoon itam ministre de l'agriculture et de la sécurité alimentaire am benn jàngat bu génn fan yële. ñu ne daal six départements euh, sont menacés par l'insécurité alimentaire ñu lim ci Kanel Ranérou Salémata Podor Matam Tivaouane ñu ne aussi trois cent cinquante neuf mille personnes sont menacées ku xam ne loolu di Jean-Pierre Senghor secrétaire exécutif du conseil national de sécurité alimentaire yan kàddu nga mën a sànni ci loolu. yow mi yoroon portefeuille bu demee loolu chaque année ñu def ko chaque année. ñu ne six département la. Mhm. ñu ne neuf la ñu ne waaye mhm. soo demee ci réew mi. département bu nekk am na fa ñoo xam ne suñu añee duñu reer loolu moom ay wax la rek am na ñu nekk en di difficulté mais emul sax ci région yooyu yëpp Sénégal li ko dalee ma ne Matam mhm. ba dem ba euh, ngay dem euh, fële Kolda mhm. am na fa ñoo xam ne suñu añee duñu reer loolu ay wax la rek cest nañu ne xam nga loolu rek ay calcul yoo xam ne mhm. pour que ay PAM ak programme alimentaire mondial baak gars yi di jàppale réew yi loolu lañ ko defante c'est un système international boo xam ne système mu naxante la. dégg nga mais jàpp naa ne. waaw ah, léegi de bànqaas yi état bay ko génne moom. non ñoom ñoo koy génne parce que système mu bu la ci kenn nax système mu naxante la. kon état bay naxaate. non non non système international la. Mhm. cest à que dafa am organisation. Mhm. programme alimentaire mondial. Mhm. boo xam ne dañuy dimbale nit ñi. boo xam ne ñoom dañuy liggéey pour di récolter di dagale ay ay ay kii ay ay aliments. aliments yooyu dañ koy war a redistribuer. teg seen ay règles yoo xam ne de calcul. pour seet ah ñi ñoo sonn ñii sonn ñu loolu loolu la amul benn problème xam lu ñu war def. dañ fexe ba nit ñi di mën a bay lu ñuy dundee. man programme Abdoulaye sax waxoon na moom programme ay dimbali yooyu vraiment ñu ngi koy accepter mais baaxul parce que dafay yaaf dafay yaafu loo nit programme yooyu waruñu ko wékk fenn nañu tiire ndox mi ci géej gi ñu indi ko ñu mën a bay ndoor. ci département Matam yooyu ñu wax ay Podor ak yooyu mm. ah def ko ay Bakel Casamance tam ñu xëcc fa ndox mi foo xam ne ndox mu weex la ñu daal di koy jël segg ko ba am ndox mu neex loolu mooy loolu mooy problème bi mais gis nga affaire programme yi ñuy génne noonu maa la wax ne la wékkuwul fenn ay calcul la rek parce que fu ñu la génneel ne la fii ah, seen ah, kii bi am nañ programme d'insécurité alimentaire am na fu leen ko ëpp fop te binduñu ko ay calcul la rek programme international la boo xam ne ñoom ñoo ko teg noonu pour mën a jël alali réew yi al alali alali yi réew yi. jël ko redistribuer ko jël gi seen wàll. soo ko seetloo sax voyage yi ñuy yónnee ay voyage programme yi ñuy yooyu. Mhm. ñi nga xam ne ñoo koy joxe liñ ci génne ay voyage ak expertise ak ay enquête mhm. quatre-vingt pour cent la ci li nga xam ne moom la ñuy jël di ko séddalewaat. Mhm. donc affaire système naxante la pas Sénégal mais système bu mag la boo xam ne ci monde bi la nekk. boo xam ne dañuy naxante ak nit ñi. ku ko orchestré. non loolu grande puissance yi ñoom ñoo ko yore rek ñoom ñooy ñoom ñoo yore mhm. ñoo koy distribuer nu leen neex. Mhm. teg seen ay règle du règle boo xam ne Sénégal la de méthode de calcul bi soo demoon tey Mexique. Mhm. wala nga dem tey Argentine. wala nga dem Brésil même méthode yi ñoo fa nekk. donc loolu ay méthode naxante la man daal li ma comprendre mooy. suñ bëggee réew yi ñu développé. nañ fexe ba nit ñi di produire lu ñuy lekk. dañu fexe ba seen réew ñu yokk mooy yi nga xam ne bëri de production pour am lu ñuy lekk man loolu laa gis man mhm. jërëjëf Farba Senghor kàddu gu mujj gi waaw gu mujj gi mooy man maa ngi lay gërëm di gërëm di gërëm Sénégal yi mhm. man dama yaakaar ne war nañ am ñun ñëpp conscience claire ne mhm. su fekkee ne dañu bëgg a développer Sénégal su fekkee dañu bëgg a combler retard yi gab yi nga xam ne moo nekk ci biir réew mi ñu war a mën a soxla ndakaaru gii am ay mbedd am ay goudron am ay pont soo jógee Dakar nga war a mën a dem Tambacounda ci avion ak ki saxaar war a dem euh, ki Linguère euh, euh, Saint-Louis wala nga mën dem Casamance loolu dafa laaj un sacrifice sacrifice na ci conscience yi sunu xel yi ci la war a commencer ñu xam ne ñun dañu war a liggéey dañu war a tolérante te bàyyi te bàyyi wax yi parce que fi mu toll nii dafa dañu am période boo xam ne période ay WhatsApp ak ay période ay Facebook ak ay yàqante beeg ay wax lu ñaaw ak def lu ñaaw. loolu ñun jiguñ ñu réew yi réew ndaw yi ñun réew yi ndaw yi dañuy dañuy concentration c'est-à-dire que ñu xam lii suñu warugar ñuy def loolu mais léegi malheureusement euh, ñëpp dañuy def li nga xam ne moom mooy lu ñuy divertir loo xam ne ñun développement bi dootu ci mën a sacrifié wu def sax loo xam ne daf ñuy retardé tey kii moo sàcc lii kii moo jël lii kii moo def lu ñaaw kii moo def lu bon loolu moom moo ëpp doole kii moo def lu baax maa ngay dégg ñu wax ci rajo yeeg télévision yi ku def lu baax day mel ni ku def lu baax moom yow loolu nga def mérité wul Sénégal yi xam ko mérité wul askan wi xam ko waaye ku def lu bon balaa ngoon a jot Sénégal yépp kenn ku nekk day fëgg sa nopp wala ñu fëgg sa buntu kër ne la lii la diw def je crois que loolu dañ koo war a fexe ba ñu tegg ko ñoom am conscience liggéey pour réew mi am yu bëri yoo xam ne dañ koy gëmm dañ koy régler Mhm. jërëjëf monsieur sengor kon mbokk ñu doon teewlu ci Sénégal 7 gis ngeen ko ñu doon dalal tey la ministre Farba Senghor de jiite itam mouvement mbooloo askan wi les libéraux républicains ñu koy gërëm yéen i tamit ñu leen di gërëm di leen dig daje àllarba bii di ñëw ci beneen entretien avec jërë ngeen jëf.